ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di am mbégte ci ñëwaat fii tey nag ñu ñëw ci suñu benn jigéen ah, man dama naan Sira des fois man xam ma fa laa jëm mais mu waxtaan ah, kii nag kenn dootu ko présenté ci réew mi waaye dañ koy mu présenté boppam ñu doog a ñëw ci digganteem ak Sira ak leneen li nga xam ne moo ci topp dañu la nga nuyu ñu lay suivre. Diaspora 221 maa ngi nuyu maa ngi tudd Mariam Sy euh, ñu ma gën ma xam ci Naar wala Aïda tey tey eh, sa digganteeg Sira lan la man laa gën a tàmm. Sira wala Kewe. waaw Sira bu la neexee ñun Kewe la ñuy wax parce que Kewe bi lañu gën a miin donc Kewe dafa nekk sama rakk ju baax ñu bokk liggéey bokk maison de production ñu koy wax Pikini production dox daje boole ñu mais dafa mel na léegi dafa bokk ci man parce que Sira baax na Sira yëg na nit dal na tey na te bëgg na lu muy def. donc bu biwul loon lii tey daf may bett ndax tournage saa yu ñu toogee benn fan si laa du ko tëbalee beneen fan bi dem na posé ongle donc lii dañ ko ciy ñaanal mu nekk bëgg-bëggam yàlla jàppale ko ci ba lim ciy xaar ak lim ciy yootu yàlla defal ko ci barke Seydina Muhammad lii di mu mel ni sax war na jox bon exemple yeneen actrice wala yeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci milieu bi euh, war war nañu am ci lu ñu yëngu daal. waa actrice nag ku nekk ci yaa ngi yëngu ci sa boor maam naa mu feeñ ak mu nëbbu mais gars yi ñu ngi liggéey xam nga du lépp ngay fësal bu war jotee rek heure bi bu app bi jotee rek dina fës incha allah mais ku nekk yaa ngi sa rokk di bay sa waar fii rek que xam naa ni neexu la gis moo tax dama ko gis rek daw ni gars yi damay ñëw ci série du man série du man nan def ba intégré ci série boobu waaw série du man dama maajoor ak jool laa ko njëkk def après si laa jóge ci maajoor ak jool def série du man euh, en fait benn interview laa mosoon def euh, si 8 mars les anciens mannequins parce que déjà je suis mannequin ci loolu laa def Aliou Ndiaye demande ma sama benn copine woo ma euh, la tournée Madioro Diaw jóge ci Madioro Diaw dem du du man tey nga ñëw di ci jouer ni c'est très touchant touché na Sénégalais yu bari donte am na ñoo xam ne du ñàkk dinañ la ci mere mais loolu noonu dañ la ko jox rek pour nga jouer ko loolu noonu loo loo dund la wala. lu société bi di dund la wala nan nga def ba intégré pour mën a jouer boobu. non dund ba ko peut-être xëy na société bi ñoo koy dund parce euh, ñun on est des porteuses de voix mbubb la bu ñuy sol mais bu ñu paree dañ koy summi ça veut bu ñu defee porte force de ñun euh, théâtre kat lu ñu joué rek dafa fekk ñu ci biir kër yi donc lu nekk si biir kër li ñu nga ci table ngal la bu ñu ci mere parce que am na koy dund peut-être ñoom xëy na mënuñu ko wax ñu jaarale ko suñu jottali leen ko ngir ñu koy dund ak ñoom que ça soit bu nekk sa goro que ça bu nekk sa jabaroo jëkkëroo sa sa jëkkër jabar donc loolu la ñuy ñaan pour gars yi bàyyi loolu te xam ni nit ku bàyyi këram ñëw kër ah ñàkkul dara këram dafa bëgg sëy moo ko fa indi kon nga la nañ may jàmm seen jabaru doom yi ñoom tamit ñu jàpp seen goro yi te xamante ne ni ñaar ñëpp la c'est vice versa donc te xam ne ku bëgg sëy moo tax mu dem jóge këram ñëw ko goro donc ngir yàlla nañu jàppalante te bàyyi lu ñu nekkee parce que baaxul parce que lu tax xam naa ni baaxul parce que man mi ko joué su ma génnee ci benn damay dégg lu baax damay dégg lu bon dañu dañuy apprécier ñeneen ñu apprécier mais ma comprendre ni man maa ko opte et j'assume parce que loo jàng lu ne tari ko yaakaar naa ne bu demee ba gaay naan moom loolu la ça veut dire que def lu baax mais sant yàlla kii dama ci dama dama dama ciy cité benn benn rôle muy sa diggante ak Cheikh Omar Sénégalais yu bëri xawoon la cee mere <laughs> naka nga dundee naka nga dundee séquence boobu. moom tey fayu na parce que làpp naa ko première saison mu làpp ma deuxième saison donc jàppalante rek la dañu liggéey rek nañ comprendre lu dara. première saison bi loolu noonu na naka naka naka nga def ba intégré ci rôle boobu parce que métti woon na bi nga koy doog a ak sénégalais yi. non méttiwul. méttiwul pour man parce que je me dis que damay félicité waale Cheikh Omar parce que lu ci bëri moo ma ci aidé bu ma xàccee pour dóor du ma dóor mën naa xàcc mais ne keneen mooy dóor parce que néeguma ko donc ce qui fait que moom Cheikh naa ma defal li na sant parce que bul hésité boo hésité rek baax bu ma ko waree dóor wala ko saaga def naa ma ma def ko donc moom tam de passage ma ko si félicité di ko si ñaanal yàlla ndax bu ko neexoon artiste la comme man xëy na naam mu ma ci juutu moo tax mu won ma yoon bi ma ko koy si sant Pikine production tamit ñu nekk bu baax suñu président muy Aliou Ndiaye moom it de passage mu nekk patron bu baax ku yëwan ku yëg ay artistam ku amul benn problème jabaram y compris metteur en scène nag ñoom loo baasee Alioune Kane ñoom tam dañuy secondé bu dul nii ñu ne nii la yenn saa ñu xuloo ci plateau ba mu neex mais pour mu baax a tax mais bu génnee après ñëpp tout le monde est man may ñëw mooy euh, d'après série bi naka nga koy dundee ak nit ñi parce que comme li nga wax série la boo xam ne yaa ngi ci joué yoo xam ne euh, ci yow du la def problème mais ci nit ñi da leen def problème naka nga koy dundee ak public sénégalais yi. dundee ma ko dara jàmm ak salaam comme j'ai dit tout à l'heure aw ñoom benn problème ndax ku nekk ngay gis ku nekk lay apprécier ça veut dire ni liggéey la rek. et que réussir nga ko moo tax sénégalais ku nekk di wax c'est aussi simple. may wax ak yow ma sentir ne am na beneen talent bu nekk ci yow loo xamante ni bokkul sax ak ak ak ak série yi loolu mën nga ñu ci indil ay talent bu demee nan ça dépend rek xam nga artiste moom euh, dangay ñaan yàlla ñu jox la facette bu nekk nga joué ko xëy na yàlla facette la ma indilee tey mais xëy beneen facette bu ñëwee ma dugg ci personnage bi comme je te dis je l'ai appris dama jàng art donc loo ma jox ma dem ci. Euh, sa mot de la fin ak lan ngay wax sénégalais yi nga xam ne aussi tamit dañ leen seetaan di leen jugé yenn kàddu yi. waaw ñoom dañ leen rafetul rek macha allah ndax euh, mën naa wax ni dund nañ ba toll ni kenn xamuñu à l'absence de un ou deux mois ou Maxime Sénégal yëpp xam donc sant yàlla la man may wax ni maa ngi jéggalu bu dee dafa am si lu may def ci lu neexul Sénégal yi moo xam ne du sama coobare liggéey la comme je dis encore une fois on est des de voix lu nekk ci kër yi la teg ci table pour ñu koy dund ñu bàyyi ko merci beaucoup léegi sax est-ce que tey du ñàkk ne ñenn ci ay jigéen dinañ la woo wala ci ay góor di ci félicité naan la lii la dund suñu kër gars yi lu ñuy dund mais ñu xam ne rek encore une fois la ñuy yeete. ah looy wax ñu ñu ko jàng. ñu ko jàng ñu ko jàng ci mbedd bi yëpp ça revient au même nga parce que ku ñu for ci mbedd bi buñ la jàngalee nga dem parce que ñun ñi dañoo for ci mbedd bi jàngal ñu ba ñu dem kon ñoom ñu ñu for ci. ay kii xaw man avant maison de production bi daaray koc laa génne. sama frère moom ma njëkk formé Amadou Soder Ba ma jógee fa dem daaray Kocc bi ma jógee daaray Kocc laa dugg Pikini production tey comme je di cinéaste bu nekk yaa bind sa scénario xëy na yow mi mbay la gis pour nga jouer ko ko. bu la neexee mën na wax jàngloo aar bi mais bu la formé def ci yow ngam dégg-dégg bu la waxee nga dem c'est aussi simple comme bonjour. actuellement ni ngeen koy gisee nii Kewé moom moo toog ak jëkkëram euh, muy fas yéene ubbi boutique am lan nga wax sénégalais nga xam ne wuyu si nañu la sa nawle artistes yi wuyu si la ñëpp ñëw wuyu si la si boutique bi nga xam ne yaa ngi koy ubbi tey lan nga wax sénégalais yi. vraiment maa ngi maa ngi lay nuyu. di nuyu ñëpp ñi fi teew. def ma lu dul kontaan vraiment kontaan na trop parce que nga wuyu nga woote nit ñi wuy dafa neex awma lu vraiment di remercier aussi kontaan naa seen ñëw. d'accord au début actrice la la Sénégalais yi xamee. Mhm. nga nga nekk ci ràññee ci lool sur la toile ñëpp xàmmee la ci liggéey bi ngay def si milieu mhm. si kanam gis la nga nekk si ginnaaw. benn signe nekku si euh, actrice la ñëpp xam nañ ko mais mënuma di toog di xaar rek chaque voilà chaque euh, série am pour nga mën a dem jouer ma ne pourquoi pas investir si dara liggéey. loolu rek moo ko indi du leneen. ba beauty <coughs> <coughs> beauty moom ñëpp xam nañ laal la. baa bi baa bi mooy sama sant jëkkër. kon jonge la quoi affaire de jonge waaw mun ba tey. ba tey. structure bi lan ngeen di def euh, pédicure manucure wala ak lan lan ngeen di def. am na pédicure manucure soin de visage onglerie ak salon aussi. d' gis nañ fi say nawle actrices yu mag ah des célèbres actrices yoo xam ne dañ leen gis ci série yi euh, ñu ñëw wuyu si la te quoi qu'on puisse dire seen métier bi dafa bëri milieu bu concurrence la quoi. Mhm. Euh, ban liaison nga am sa diggante ñoom ba mu jaral la ngay ubbi boutique ñoom ñu bàyyi seen yite ñëw wuyu si la. genre man je peux dire que ni gisuma concurrence euh, surtout fi nga xam ne foofu laa nekk foofu laa commencé foofu laa dooree muy Pikini foofu comme ay comme famille en fait boo ñëwee doo xàmmee kenn da ngay foog ni ñi ay sœur lañ. c'est ça moo tax boo wootee ñoom ñëppay ñëw. d'accord entrepreneuriat nag dama gis ni dafa feeñ ci yéen bu baax yéen actrices yi. Mhm. seeti naa récemment Marichou mu wax ma que ni am na euh, boîte boppam boo xam ne boîte de production doxal seen bopp quest est-ce que du cinéma bi moo doxatul na daan doxee. Mhm. wala da gis ni entrepreneuriat bi moo leen ci mën a génne or yi. non non c'est pas que cinéma bi doxul cinéma bi mi ngi dox bu doxul woon nit ñi duñ ci

non vraiment Mamour li ñuy dund c'est naturel li ñuy dund c'est naturel noonu lañ mel comme ay frère ak sœur. ku nekk njëkk am na uh-huh. su <laughs> mbay mooy je dis que ni man sama nob laa xam man je pense bien que ni année yi lu muy gën a yokk nobel gi di gën a ëpp. ci comprends. non non je dis je répète lu at bi di gën a dem mbëggeel bi di gën a yokk ci comprends. voilà d'accord lan ngay conseil sa moromu actrice yi nekk ci milieu bi. Euh, comme. parce que gis nañ yaa ngi def entrepreneuriat ubbi nga sa sa sa boîte fexe nga mhm. sa dara lan ngay leen conseil ñoom genre je peux dire que nii muy man muy yeneen ak yeeg acteurs yi fi nekk yëpp kenn ku si sañoon di nga am lenn loo xam ne yaa ko moomal sa bopp. Mhm.

sama yaay sama yaay bi mhm. daan am cachet mhm. amul fitu laal egguma sama yaay mhm. mu ci dindi dara sa diggante bi nga am sa yaay man xam naa ci dara donc nan nga dindee jëkkër ak yaay gis nañ amour bi nga am sa yaay <laughs> mais euh, li ma lay tontu fa fiyaa mooy yaay ju nekk loolu ngay ñaanal sa doom nga mu màgg ba am ko ko bëgg dem ci kooku noonu kese la c'est simple sama yaay fi mu toll nii loolu moo ko gën a. d'accord ban ban plan de communication nga teg pour fi nga ubbi ñi Sénégalais xam ni fii ban plan de communication nga teg pour nit bërëb la bu ñuy taaral jigéen ñi pour clients yi mën a nga mën a def. ba mhm. Sénégalais yi cest à nga xam ne ñu mhm. ñi nga xam ne bu ñu leen seen taal ñu xam léegi fan la nekk yow adresse bi voilà. ok man comme que nit ñaa may suivre TikTok sama TikTok je pense bien que ñu bari xam nañ ko Euh, Kébéma Joro Jor Instagram aussi Siradou Man euh, sami snap aussi Eben 200 209 képp ku ñu contacter si li ma wax nii di nga xam fii fu mu nekk di nga xam kii bi fu mu nekk institut bi incha allah. merci beaucoup <coughs> waaw maa ngi leen di nuyu di remercier ñi nga xamante ne ñëw nañ teew si ouverture bi di nuyu ñëpp. bon dénk ko dara lu dul mu liggéey en fait liggéey parce que je pense que liggéey moo tax mu ubbi ko. donc euh, na góorgóorlu bon liggéey fonk liggéeyam parce que liggéey mooy fay quoi. waaw bon euh, ku baax la ku yaru la ku bëgg a sëy la. bon man moom mu ngi may toppatoo voilà mu ngi may toppatoo mu ngi sëy gis ma si moom benn problème.